ci lu jëm ci producteur yi parce que dafa am ñaari format dette boobu di bor bi am na producteurs yoo xam ne état moo leen amel am ñoo xamee ni ñoom ñoo ameel banque léegi la la ñu amel ñoom la ñuy sukkandiku mooy état fay leen ñoom ñu mën a ñoom dellu fay banque yi euh, gis service su lu ñu woowee la la dette mm-hmm. Euh, ci ci réewum Sénégal dañ lay xamal ni ci ci ci wàllu économie. dafa am solo ñu ne la trois cent quarante sept milliards lañ fa fekkoon ci. li ñu woowee bor public en deux mille douze deux mille vingt quatre mu toll ci mille huit cent vingt six milliards boobu la bor ñu woowee la dette publique. dette publique am ñaari paramètres yu ci nekk si yi ñu ci gën a xarala. Mm-hmm. gën ñoo ñu ci gën a am xam-xam. pour mën cee mën cee àddu waaye ci boobule dette am na loo xamee ni ci étranger yi la mm-hmm. maanaam luy jóge bitim réew euh, ñu ameel leen ko. comme yenn ci ay kuréel banque mondiale ak mm-hmm. yenn ci ay nit ñuy jàppale réewum Sénégal am bor boo xam ne ci biir réew mi ci lay bokk mooy lu ñu woowee nationaux ñoom bokk na ci yooyu la ñi euh, ñu yoreel bor ñuy wooyee les producteurs mais fay bor day fekk nga xool ne ni bor bi du man maa ko yore kuréel gi fi nekkoon wala euh, ñi ñi ma jiitu. Hmm. ñoom ñoo ameel mais léegi man laataa may fay donte nee naa may naa nañu fexe ba fii léegi fukki fan. ñu fay leen bor mais c'est un vœu bu mu bu mu émettre peut-être que mën nañu disserter ci est-ce que waroon naa wax hmm. joxe date. mën na doon lu ñu ci mën a waxtaanee mm-hmm. est-ce que euh, la mu ba muy joxe date amoon na tous les paramètres mm-hmm. pour dire ko ba sàngam war nañ leen mën a fay mm-hmm. parce que aujourd'hui le problème qui va se poser ou qui se pose actuellement li tax ce retard là mooy kan nañu ameel amel producteurs yi foog ñu xool kan nañu ameel ndax li ñuy wax ni ameel nañ leen ko noonu la demee parce que fii gis nañ fi euh, gars yi fi nekkoon ñenn ci ñi fi nekkoon bu ñu la waree ne dërëm nga ma ameel ne leen don tey ameel nga ma 200 francs foog ma saytu ndegam 200 francs la wala dërëm la. Mhm. yooyu yëpp nag premier ministre vëm la am maanaam waxam la mën a def. Mhm. mais dafa am ci biir gouvernement am ñoo xam ne ñoom ñoo ko war a appliquer léegi kooku tamit ndax l'État. Mhm. dafa am ay mécanismes yoo xamee ni doo tëb tëb rek dañuy nañ fay gars yi suba. dafa am ay mécanismes yoo xam ne dañ koy xëcc. c'est pas parce que moi je suis le président de la République ou le premier ministre que je dis tout de suite tout de suite na leen fay suba que tout de suite fay bi day ñëw suba parce que dafa am mécanisme yu muy jaar dafa am saytu boo xamee ni ministère bi war na ko saytu dina dem waxtaan ak les organisations de mm. producteurs nga xamee ni waa CNCR am na ñu ci ëmb ak ñeneen pour xool effectivement si cette dette la c'est vraiment li leen leen amel mm. ci wàllu bor bu ko euh, bu ñu paree xool fan la ñuy jëlee xaalis bañ leen di fayee Euh, les caisses de l'État ne sont pas aussi euh, élastiques nu ñu ko mën a waxee maanaam du euh, da nga soxla dix mille milliards rek nga ne xaaral ma tëbb ko ci caisse état bi non c'est pas de l'argent liquide boo xam da ngay ñëw fekk tout de suite tout de nga mën a mën see disposer tout suite non il faut mécanisme yooyu yooyu yëpp ñu wax ko peut-être lii problème bi je le disais tout à l'heure et ça ça mérite peut-être une réflexion mooy gaaw wax bi nañ ko moytu nañu wax. man suma ma doon ci wàllu communication on va très rapidement éponger la dette des euh, producteurs euh, j'ai donné instruction au ministre concerné pour ñu saytu loolu pour fexe avant ñuy démarrer mbirum campagne ak yooyu ñoom ñëpp ñu fay leen seen bor loolu boo ko waxee tu te donnes une marge pour permettre aux gens euh, bañ la wax ne non yaa waxoon démb wala yaa waxoon suba la tey le ministre bi ñu denk wàllu infrastructure transport terrestre ak aérien euh, El Malick bi accident bi amee fële ci aéroport international Blaise Diagne bi mu ñëwee ci saa si daf leen na ña fa nekkoon euh, dinañ leen jox ku nekk cent cinquante mille pour mën laa jàppale. dégg nañ fi coow lu fi am ñu ne non quarante mille la ñu jox ku nekk di coow non quarante mille la ñu jox te ministre bi cent la waxoon. ministre bi la mu wax pourtant génnu ci mais daf ko wax pour déjà dalal leen pour xamal leen ni noonu la war a demee et la preuve peut-être deux jours ou trois jours après ña dem euh, Bamako parce que y une bonne partie ci équipage euh, ci euh, ñi ñi waroon voyager Bamako lañ doon dem Mali mais ba ñu àggee jox nañ leen seen reliquat wu cent dix mille yooyu mais quarante mille yi li ay la AIBD wax mooy ni daar daar bi am na ñoo xam ne dañ ko soxloon tout de suite tout de suite moo tax ñu teq ci cent cinquante mille yooyu ci xaalis bi fi ne ñu jox leen quarante mille parce que peut-être li si des ñu ko nii nii en liquidité mais teewul indi na coow c'est tout simplement parce qu'il faut dans la communication et c'est valable pour tous les ministres premier ministre président ku mën a doon quelquefois faire très attention ca la ngay wax ba nga xamee ni ëllëg du ñu ñëw teg ko ne ne yaa waxoon lii ci bër heure sàngam te heure sàngam nga xool lañ koy lañ koy lijjanti euh, yenn saay mën nga liggéey te doo wax donte Sénégal nag liggéey bi faw ngay wax pour leeral aussi. mais bu fekkee ñoom bi ñu àggee ba ñu ko Bamako complété na cent 140 yi. kon ce qui veut kon communication bi moo jàllul bi muy annoncé que ni joxe na 150 000. mais kan moo ko jàllale lu tax lu tax jàllul. ak kan moo kan moo def erreur ci. mooy mooy li may wax ni chaîne la. Mhm. le ministre des des transports infrastructure transport terrestre ak aérien dafa joxe la muy la mu la mu la mu yéene ne ni nangam nañ ko jox ku bokkoon ci biir avion bi waroon na tukki ñu ne la ku nekk nañ ko jox cent cinquante mille mu taxaw wax ko pour soulager déjà ñi fa ne. ne état dina def lépp lu mu mën pour jàppale leen déjà pour soulager leen dañ yëkkati cent cinquante mille ku ci nekk ñu jox la ko yorew ko ci poosam bu ko yoroon ci poosam ma ne ko monsieur le ministre lu tax ngay taxawaaloo xaalis mais yorew ko ci poosam mais wax na ko ci daar daar bi ba ñuy dugg ci bus bi génn ci tarmac bi pour dem ca fañ leen war a dalal ku ci nekk jox nañ la quarante mille pour ses petits besoins yoo xam ne peut-être rapidement Euh, di nga ko soxla ndax say yére am na ñoo xam ni seen i valise a ngi woon ci biir avion bi jot ñu ko jël peut-être la ñu soloon wala benn saak ba ñu yoroon moom la ñu la ñu yore peut-être que amuñu woon sax yére yu ñu sol wala dem fanaan ni hôtel mais dinañ wut lu ñu leen lu ñu lu ñu mën a yore mën na am ñoo xamee ni seen téléphone crédit bi sax jeex na dañ jënd crédit ñu ne leen jox nañ leen rapidement léegi léegi nii quarante mille francs je communique pas pour le gouvernement ou pour le ministre mais je veux expliquer parce que j'ai ces infos ces informations teewul bi ñu coowee ne ni non quarante mille rek la ñu jox est-ce que dellu suñu waat ci journaux yi nañ ko bindee woon bindaat ne ni fay nañ leen ñoom ñëpp. defuñu ko ça veut dire que am na ñuy xaw a profiter ci situation pour jéem a saltel saltel wala ne non ñoo waxoon defuñu mais c'est trop tôt comme je di c'est trop tôt euh, j'ai dama toog ak benn. opposant boo xamee ni kenn du ne ni kii moom du opposant radical sax laa ko mën a wooyee xam nga lu wax euh, man en tant que opposant bokk ci kuréel gu fi nekkoon mm-hmm. wax naa sax samay samay samay euh, partenaire ci biir kuréel googu ñii nañ leen bàyyi ñu liggéey fii rek ñetti weer ñeenti weer ñuy doog a natt mm-hmm. waaye ñun tamit on peut des opposants aussi nañ leen jàppale bàyyi leen ñu liggéey en attendant bu ci kanamee ñu xool. fi mhm. nga bëggoon a ñëw léegi ci semence bi nga jógee léegi mooy wàllum jiw bi. Mhm. xam nga jéego yi nga xam ne ñu ngi ko ci jéem a ak yooyu yëpp mën naa nekk mais gis nga opérateur économique bi Birame est-ce que tamit juru tamit ñu taxawaat ci xool ba xam